dal leen ak jàmm ki seen xibaaru mbàttit njiitu réew mi président Macky Sall ci conseil des ministre bi wees jot na ñaax ki nga xam ne moo di ministre de la culture ngir mu saytu ni mu gën a gaawee lépp lu jëm ci wàllu taxawaay këru liggéeykaay bi lee di SODAV bi nga xam ne mooy yittewoo liggéenti koppar yi tukkee ci xaq yellee fu fendkat yi niki noonu it ñu ngi taxawal commission bi nga xam ne mooy saytu liggéey yu këru liggéeykaay yooyu mel ni SODAV ki nga xam ne nag moo jiite SODAV di ci Bathily di xam ne ne lu ni mel mi ngi ko rafetlu bu baax ndax kat bi la xeetu doxalin doon na boo xam ne dina gën a leeral seen liggéey nañu ko déglu. Euh, SODAV dafay rafetlu décision bu président de la république jël démb pour créer commission de contrôle permanente ba pare ñu auditer SODAV. ndax mosuñu réeree mbir ko ne suñ la denkee dara bés dana ñëw danañ ko càmbar saytu ko xool ndax lañu la denk téye woon nga ko ci anam yañ la ko laajee woon na ko yoon waxee woon beneen bi mooy dañuy rafetlu décision bi ne ñu mettre sur pied commission bi parce que commission boobu nag moo manqué woon ci dispositif institutionnel bu nga xam moom moo waroon encadrer la gestion collective au Sénégal leneen lu tax ñun dirigeant SODAV ñu gën ko yàkkamti mooy am nañ luñ ñu jox fu ñu ko fekk ak fu ñu ko yóbbu ci Sénégal ci Afrique ak ci àdduna ñuy dalal xelu ñëpp que ne commission boo bés bu ñëwee SODAV dana ko jàppale taxawu ko ba nga xam du am benn jafe-jafe pour def liggéeyam ci anam yi mu gën a euh, yombee ci moom ak anam yu mu gën a baaxee ci moom. jërëjëf. jóge ci loolu daal di wax ci Sembène a travers l'Afrique di xew-xew boo xam ne bu am solo la jëm ci wàllu fësal liggéeyu Ousmane Sembène donte sax ñu ngi nekk ci période Covid 19 waaye ki nga xam ne mooy di professeur Samba Gadjigo ni mu koy defee at mu yàlla sàkk taxawal na programme boo xam ne dina jëm ci wàllu wane ay film Ousmane Sembène ci ay salle de cinéma waaye ci internet bi ni ki noonu amal ay conférence yu am solo ci làmmiñu wolof làmmiñu français ak làmmiñu anglais waaye ci waxtaane lépp jëm ci wàllu jeexitalu ak jaar-jaar Ousmane Sembène looloo tax tey ñu koy dalal ci waxtaan yi professeur euh, Samba Gadjigo ginnaaw bi ñu leen nuyoo ba noppi ñu lay laaj lan mooy nekk programme ren bi sunu programme bi ren sembeen à travers l' Afrique innovation bi comme ni nga xamee corona bi vraiment dafa chambu chambouler toutes les situations fépp foo xam ne et autorités sanitaires yi xalaat nañu xëy na nit ñi mun nañu fa dugg di def ay projection te respecter mesures de distanciation ak yooyu kon daañu am ay projection lu ñu wax en présentiel nit ñi daañu dem ci saal toog seetaan mais fépp foo xam ne ki mënuñu def loolu nag am nañu aussi ay projection en ligne donc ñaari la ñu war a am ci gën a bees nag li ñu def reen mooy nit ñi suñu seetaanee film yi ba pare xalaat nañu peut-être pour yokk xalaat bi ak euh, waxtaan bi dañuy am ay séminaire alors ñett la ñu am donc premier séminaire bi mooy euh, ci wolof la ñu koy defee euh, séminaire wolof boobu am na ñoo xam ne ay bindkat ay journaliste ay niitu xam-xam ñoo xam ne dañuy vraiment dañ sargal suñu affaire euh, langue nationale yi donc Boubacar Boris Diop moom mooy diriger panel boobu dana am beneen panel boo xam ne aussi ci nasaraan la ñu koy defee kooku suñu suñu jigéen bu baax boo xam ne moom tam day yëngatu ci affaire culture bi Fatou Kandé Senghor moom moo ko war jiitu ci anglais la ñu koy defee alors kooku nag suñu benn mbokk bu nekk euh, Canada buy jàngale University of Victoria euh, ku tudd professeur Sada Niang moom moo ko war diriger donc loolu mooy ino loolu mooy lu bees loo xam ne def nañu ko mooy ay projection yoo xam ne kooku virtuel la virtuel mooy doo dem ci biir saal wante da ngay toog sa kër ci sa ordinateur sa laptop ci sa téléphone nga seetaan ko deuxième bi mooy daañu am ay waxtaan am ay conférence ak séminaire affaire yi su jeex xam nañ nee ci wàllu film moom Ousmane Sembène niseroon na def benn film bu mag ci Samori Touré waaw film boobu fu mu toll ba léegi xam nga ni Samori Sembène liggéey na ci film boobu te film boobu dafa am solo boo xam ne ci moom mos na moom ci boppam mos na wax benn journaliste Jeune Afrique mu ne leen man su ma deewee defuma film bi ah mun ngeen bind kat Sembène moom dafa mel ni dafa raté bi am da li mu doon liggéey yëpp amul ci kii wante Sembène liggéey na ci lu ëpp 30 ans liggéey na ak ñeneen foog naa ne moo gën a am solo ci projet yi mu amoon parce que ñetti téere la te téere bu nekk ëpp na ci 500 pages donc scénario bi pare na demoon na sax dem def casting bi mooy euh, acteur yi nar def ci liggéey ci film bi moom ak euh, àndandoo am collaborateur Clarence Delgado demoon nañu bi def euh, seen repérage yëpp yëpp pare na daal léegi man foog naa ni Sénégal moo war jël seen responsabilité sunu nguur gi ñu xam ni kii liggéey bu am solo la boo xam ne gestu ci sunu histoire la ñu def ko xam naa ni euh, Sembène mu ngi gaañu en 2007 2008 sunu président Ablaye Wade defoon na benn événement à la place du souvenir bu mu waxee ne moom dana joxe 3 milliards francs fa pour dimbale projet bi waaw wante ba tey ñu ngi xaar ni am na ay euh, cinéastes ñu jógee Afrique du Sud ñu bëggoon def film bi parce que ñoom tamit lu la moo leen intéressé woon ci film boobu mooy dimension africain parce que seen film bi soo ko xoolee affaire Samori du Sénégal yëpp affaire Samori Afrique bi yëpp la parce que Samori moo xam ne dafa taxawoon xeex tubaab yi ndax colonisation bi bañ am donc foofu la ñu toll su fekkee boo affaire bi suma liggéey rek ñun ñëpp suñu responsabilité la responsabilité état bi la responsabilité privée ba képp koo xam ne am nga ci ubbi ubbi boo xam ne film bu mun nañu ko def ñun ñëpp daan la gërëm bokk bien que def nga. ku wax Ousmane Sembène nit wax jeexitalam bokk na ci ay kër yoo xam ne bàyyi ne ko fii alors kër yooyu la moo tax ba léegi mu nekk di yàqu te kenn defaraatu ko ba léegi. këru Moussé Sembène bu nekk sancaba Jigéen wala bu nekkoon bokk Santhiaba Ziguinchor boo xam ne euh, Moussé Sembène papay Ousmane moo ko tabaxam ay loxoom en 1900. we soo xoolee tey presse bi wala ci mois de juin bi passé juillet bi sax taw yu bare yi kër boobu mu ngi ci digg mu ngi woon ci digg Ziguinchor tey mu ngi daanu ah comme ni ko wolof caa di waxee ku wàcc sa ànd nag ànd boo dem nga fekk foofu borom ñun soo xam ne nii duñu xool góor ak jigéen ñoo xam ne dañuy liggéey gudde ak bëccëg pour taaral suñu réew mi ah su fekkee jóguñu nag te Sembène du moom rek moo nekk ci situation bi du kër baayam rek moo nekk ci situation parce que même këram bi tey nekk yoof bu ñuy wax Galle Ceddo ah suñu ci jógul te xam naa ni moom tam dafa mujj di daanu initiative privée bi nga wax bi dëgg dëgg dëgg wax nga ci dëgg parce que am na ñu xaa am na Sénégal tey ci Afrique am na yoo xam ne am nañu xaalis wan foog naa ni tey fu ñu nekk fii am na liggéey bu baree bu ñu war a def boo xam ne nit sa tekki du buubu bu rafet bi nga sol sa tekki du ñaata kër nga yore sa tekki du ñaar oto nga yore wante li ngay joxe ci sa kattan te loo xam ne da ngay yëkkati da nga siggil sa réew mi man nag ku tuuti rek la loo xam ne bis bu nag suma ma yeewoo damay jéem di seet lan laa ci munte def une fois de plus du suma responsabilité man kenn benn responsabilité collective la Ousmane Sembène liggéey dund na dundam bi yëpp lu ëpp juróom fukk at mu nekk di bind nekk di def ay film loolu yëpp pour siggil suñu réew yi ah su fekkee nag mun ñu def ay statue Faidherbe bi wala ñu def ay boulevard de Gaulle wala ñu def yeneen boulevard yoo xam ne dañ ko tuddee nasaraan yi te suñu bopp dañu koy fàtte kooku nag benn problème bu rëy la parce que développement développement du ay chiffres développement du rendement économie rek développement mooy développement humain nit goo xam ne da ngay sigg xool sa bopp ci sa seetu bi nga xam ni yaa ngi yaa ngi am sa yaa ngi yore sa ay valeur professeur Samba Gadjigo maa lay di la gërëm fii léegi ñu ndar keppee seen xibaaru mbàttiit jërë ngeen jëf ci déglu bi Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Le président de la République en Conseil des ministres a demandé au ministre de la Culture de procéder à l'évaluation institutionnelle et financière de la SODAV et à la mise en place fonctionnelle de la commission permanente de contrôle des sociétés de gestion collective. Une décision saluée par la direction de la SODAV qui indique qu'une telle commission vient en son heure. Voici Ali Bachili, directeur de la SODAV, que nous écoutons. La SODAV se réjouit de cette annonce et exprime toute sa satisfaction euh, par rapport à cette décision très éclairée du chef de l'État. Cette commission de contrôle est sincèrement le maillon qui manquait dans le dispositif institutionnel pour que l'architecture de la gestion collective dans notre pays soit totalement achevée. Par ailleurs, nous pensons que le fait de procéder à l'évaluation institutionnelle et financière de la SODAV est une très bonne chose dans la mesure où elle permettra en tout cas de donner plus de crédibilité et aux chiffres que nous avons toujours avancés. Et par ailleurs, en ce qui concerne les dirigeants de la SODAV, aucune inquiétude n'est ressentie car nous savons à quel niveau est-ce que nous avons tiré une société exsangue qui n'avait rien qu'on nous a légué et également au niveau, au sommet où nous l'avons hissé, aussi bien en Afrique que dans le monde, pour que celle-ci soit citée comme une société modèle. en de transparence, nous avons travaillé comme il le faut, mais nous n'irons pas dans l'empressement. Nous attendons, sachant que les résultats des travaux de la commission de contrôle permanente, en tout cas, ne pourront être que satisfaisants pour les dirigeants de la SODA, pour les ayants droit qui nous ont fait confiance et également l'État qui a voulu bien nous octroyer un agrément. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que la SODA, en tout cas, rassure qu'elle va assurer à cette commission sa franche et loyale collaboration.

États-Unis, mais aussi vous êtes un fervent défenseur de l'œuvre de Ousmane Sembène. de la première innovation, c'est qu'on fera les autorités sanitaires le permettent et des projections en virtuel. En plus des films qui seront à savoir notre documentaire Sembène, donc célèbre la vie et l'œuvre de Sembène, il y aura bien sûr deux 1968, donc qui seront disponibles. Mais nous avons voulu quand même qu'en plus de ces projections, ouvrir une sorte de débat, de questionnement. Ainsi, nous allons avoir trois séminaires qui vont accompagner après les projections. Le premier séminaire sera fait en Wolof, évidemment, une de nos langues nationales. Et ce séminaire-là sera dirigé par euh, notre, notre ami grand frère et, et journaliste et spécialiste du Wolof, c'est Boubacar Bourse Diop. On aura un séminaire en français qui sera dirigé porté également par notre sœur Fatou Kandé Senghor, qui est une artiste connue à travers le pays. Ensuite, on aura un séminaire en anglais qui sera dirigé par notre compatriote Sada qui est professeur à l'Université de Victoria en Colombie-Britannique au Canada. On le sait, le film sur Samori Touré reste l'un des projets encore inachevés d'Ousmane Sembène. Qu'en est-il réellement Sembène a commencé à travailler sur ce film-là depuis en fait la fin des années 60. Il y a travaillé pendant plus de 30 ans. Et ce projet était tellement important dans sa vision de l'Afrique, dans son projet de société dans son projet de restitution de notre mémoire collective. Le scénario, il est est prêt. Il fait trois volumes, plus de, 1000, plus de 2000 2000 pages. Je crois que en compagnie de son collaborateur des 20 dernières années de sa vie, Clarence Thomas Delgado a accompagné. Ils ont fait les repérages, ils ont fait le casting. Et je sais aussi d'expérience que pendant la commémoration de la vie de Sembène en 2008, euh, à la place du souvenir, notre ancien président Abdoulaye Wade avait promis de débourser 3 milliards de francs CFA pour la réalisation de ce film. Donc nous attendons. Je sais également qu'il y a quelques la République Macky Sall en Conseil des ministres, c'était au mois de juin, avait donné toutes les instructions, là je pour que le legs de Sembène soit préservé. Et je crois que préserver le legs de Sembène, c'est également, bien sûr, préserver les projets de Sembène, surtout son projet phare qui est Samouri. Professeur Samba Gadjigo, je vous remercie. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.